Assalamualaikum boki, mbokk yi kii nag mooy Rouba Seye ñu ngi ci ñen fukki guddu cion ñu naan bis gaaw na rek macha allah tey la am ñeent fukki guddi ci suuf ah léegi nag kii noo mooy Rouba Seye kenn dootu ko présenté ñu koy wax rakk ci coon Seck rakk ci Assane Ndiaye mook coon seen ñaari yaay bokk ndey ak baay macha allah. mu wax ñu lan lan la xam ci ñeent fukki guddi yi ak nan lay ñaanalee magam bi nga xamante ne tey am na ñeent fukki guddi ci suuf. waaw gannaaw bu ñu santee yàlla dañuy julli ci Seydina Limam alayhi salaam di sant suñu wayjur bu baax a baax euh, di leen wax rek naan encore inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yépp ku ñam dund rek bis dina ñëw di nga ñam dee donc euh, xanaa di julli di ko ñaanal saa su ne rek ndax li ñuy wax naan kenn du fàtte sa bopp te ñu jiitu li ñuy soxla lu ci ëpp rek mooy ñaan donc euh, fàtte xaju fi ah coon macha allah coonu ñëpp la comme ni ñu koy waxee mu bàyyi fi nag ay ay jàngat yu baree bari bari à travers coon nit ku nekk rek ku bëgg lu baax da ciy defaru à travers coon képp koo xam ne yaa ngi ak sa waajur di nga xam noo koy toppee mais aussi à travers coon di nga xam exactement lan mooy àddina su ma waxee loolu nag c'est parce que ba way jotee dafa way macha allah mu way àddina wërngal këpp loolu ay wax ndax tey waykat buy way rek. di nga way coon su ma nee di nga way coon nag du du du turam déedéet mais li mu fi bàyyi la loo xam ne macha allah kenn ku ci nekk ba suñuy sët sëtaat mën nañ ci euh, da defaruwaat mën nañ ci am ay jàngat yu bare bare bare donc dañuy julli rek di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na rëccu lu mu doon yàggee ci kaw suuf ci barke Seydina Mohamed alayhi salaam xaritam ba mais affaire dafa mel ni dafa gaaw diggante bi mu fi gaañoo léegi macha allah mu mat 40 jours loolu moom doy na waar waa àddina moo ni tëddee xam nga liñ naan euh, booy jupp euh, àdduna bu war a bu war a jeex maanaam

waaw di wax nañu dolli muñ rek comme ñun ñëpp nañu muñ rek te xam ne àddina moom noonu la ku ki fi jëlee sa yaay jëlee fi sa baay su ne na la fi bàyyi yow dalay nax donc nag ku nekk rek euh, def jàngat ci loolu ñu fexe nag defaraat suñu toogaay defaraat suñu taxawaay xoolaat suñu waxin ah dëgg yàlla jéem a baaxal daal jéem jéem a baaxal ndax baax moom xëñ na yombut waaye yal nañu yàlla may xol guñ ko muñee yal nañu yàlla may euh, jikko ju baax joo xam ne képp ku ci julli rek ku bañ ñu fàttale ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir suuf. Mhm. waaw ñu ngi koy rafetlu lii rafet na macha allah ndax mbokk la maanaam Assane Ndiaye ñoom ñaar a bokk ndey ak baay te ku xam Assane xam ni mook coon duñu woon ñaar kenn lañu woon lii nag dafa daw yaram macha allah tubarkalla kii mooy Rouba Seye na ngeen ma xaar ak moom dinaa ko jël interview fii ci Pikine Info mu toog waxtaan ak ñun li muy def ci théâtre kenn dootu ko laab laamee macha allah Rouba nuy naa te dama laa bëgg mbaa xam <laughs> maa la gën a bëgg maa ngi nuyu internetu Pikine TV yëpp ah di leen wax ne incha allah à très bientôt ci seen chaîne Pikine TV. waaw kay mi ngi noonu caaw caaw.